xamné peut-être il était voilà près du du de de l'ancien régime. parce que mm. ñom ñoy wax lolu mm. mais ku gis yow doomu wax né 25 ministères yu jël avec commençant par voilà mom djib le premier ministre ñom ñep amul kenn ko xamné ne wax ko sànq nga ci ngay ngay douter ci ñom ci compétence am kon ñoñu non ils sont des sénégalais peut-être dañ don travailler ak mom ils sont dans le parti passif donc je pense que lolu non c'est normal mais bu leen déglu après le président va va va trancher moom dina leen xool ba xam seen compétence dinañ ko def wala duñ ko def c' est à vous c' est à lui de de de de de voir mais du nekk nag ne il est Diomaye classe ses hommes loolu c' est normal en politique. képp hmm. politique moom man gëm naa ne képp ko nekkal muy nit démb wala leneen boo xamee ne am nga compétence bi je pense que nga def ko ci kanam loolu yàqul dara quoi pour man loolu laa loolu laa gëm quoi ci dara ne vraiment dina indi doute des Sénégalais pas alors en que jeune. Mm-hmm. Euh, la, la, nomination de Ngagne Demba Touré ñu gis ni euh, donc euh, plébiscité à sans sans que ni franchement yàggoon neen peut-être yegg si de côté un mhm. gouvernement si jeune un mhm. gouvernement qui a été itam quoi qu'on puisse sur ñoom Fadilou Keïta mhm. Olivier Boucal euh, étant des jeunes ñu avons un poste de responsabilité exactement comment comment comment peut-être analyser peut-être gouvernement du Japon, gouvernement de xawoon mais quand même, c'est euh, c'était pas si jeune exactement. Comment le comprendre en tant que jeune effectivement xam nga lu euh, fallu esprit sénégalais jeune waro nek ji jour mom expliquer euh, Demba di wax ne ba muy dugg ci politique il n'avait deux ans même que que deux ans ci administration wala amatuul matuul lol def ci mais ben ben ben une grande autorité ko quoi parce que parce que man c'est c'est la même chose parce que je suis je suis natif de de de mm. Mm. mais parfois si incarner le leadership là ñu bëri dañuy jaaxle en tant que jeune. mais pour man loolu du ci dara être jeune être ambitieux je pense que c'est ce qui est important en tant que jeune il faut être ambitieux il faut avoir de grands de grands projets yo xamné de dina le permettre nga euh, les nga mën franchir le cap. je pense que Ngagne Demba lolou lolou comprendre. mais man gisuma ci dara lo xamné ne euh, man nako andil ben ki légui dal qui confier nañ ko euh, le directeur des mines. je pense que les sénégalais. mais Semi Sène aussi. waaw quand computer c'est un processus assez assez assez quand même assez, assez, assez, assez, assez complexe quoi, mm -hmm. comme Hein? Oh. Ah, parce que vu que mon euh, terme de okay. master, je pense qu'il en est capable de le, de, de le gérer. Waouh, non, gagne mon. Man, voilà, man, man, am na confiance ci quoi parce que c'est un gars bo xamné peut-être bon une relation yu xaw voilà mais bo xolé ni muy waxé avec voilà euh, son comportement ak limuy limuy incarné je pense que là bon buñ ko joxee le temps après voilà dina dina def le le travail quoi. Hmm. mais pour man l'âge comme comme le dit Mam Cheikh Ahmed Tidiane l'âge n'est qu'un chiffre donc benn chiffre la rek amul amul amul amul kii xale la wala voilà aux gens bien la valeur n'attend point le nombre d'années donc képp koy ne xale am jom am am loo xam ne ngi ci yow rek je pense que la meilleure de il faut, il faut le confier voilà, des responsabilités et en train voilà, de, de, de le suivre. Je pense que le mot am solo quoi. Mm. Mais gagne bon, voilà. Dina, dina, dina def le, travail quoi, j'espère. Mm. Voilà, j'espère très bien. Donc, on euh, ko jox le, le, le temps quoi. Au lieu que nous bëgg def ben jugement bo xamné voilà, c'est un peu c'est précoce dafa hmm. teel quoi. pour arriver euh, hmm. pour arriver exactement euh, concrètement génie en ana fan leen daal di a penché wu expérience expertise efficacité Diomaye mu leen wax wàllu humilité. Hmm. quand le comprendre. nous bëggee euh, réussir à leur à leur à leur à leur à leur objectif exactement. waaw génie yi xam nga le président pardon donc bu taxaw vous taxawee ne jeunes yëpp mën je pense que là ça sera une lourde tâche pour lui le mot mën def mooy essayer quand même sànq wax wax naa fi avec tout l'espace bo xamné xam ñu ngi koy tous les terrains yo xamné voilà ñu ngi koy am dans les différentes régions yo xamné ñing fi donc non cultiver pourquoi pas essayer d'aménager ces zones là yobou fa jëm leena a aussi parce que man li lay wax man à chaque fois que je à Linguère bon je suis voilà damay dem ci ci ci tool yi donc loolu la gëm dama gëm né Sénégal mënuñu mënuñ ko mënuñ ko défar te jaaruñ ci mbay. Hmm. mbay nag buñ koy wax c'est la force quand on parle de la force, c'est la jeunesse. Donc il faut quand même qu'on pense aux jeunes yóbbu leen ci ci ci ci orientation bobu jeunes yi meuna dem démé ñu voilà def la tout au moins autosuffisant en riz bu ñuy wax la autosuffisant alimentaire bu ñuy wax ñu mën ko ñu mën ko atteindre d'ici d'ici quelques quelques quelques années je pense que lolu moy moy moy moy mais quand à jël jeunes yëpp ne leen dina li outal liggéey yóbbu bon avec l'entrepreneuriat est là donc il faut essayer de les orienter aussi dans l'entrepreneuriat je mm. pense que pourquoi mm. pas ñu voir tamit pour rek peut-être du ñàkk ak trois employés yi xam ne itam peut-être ñiy xaar une continuité allant dans le sens du projet pour quel Product. waaw product mm. product waaw loolu seen projet euh, <laughs> c'était le Sénégal émergent ci loolu lañ nekkoon euh mais bon comme l'État c'est une continuité je pense que dinañ ci jël les aspects positifs yo xamné dina mën permettre le Sénégal mu voilà mu mu ci ki bu mu je pense que voilà l'État va prendre va prendre en charge cela loolu mom man aw ci aw ci ben ben benn inquiétude quoi. voilà c'est clair c'est clair exactement je rappelle que nous sommes avec euh, euh, Maude Sall cette émission li nga xamné que moo di <coughs> Midi Info alors Maodo. Mhm. ñu daal di ñëw exactement si Ben point. Il euh, faut toll ni ki que nous Ousmane Sonko moo une grosse décision à travers son ministre de l'Agriculture. Mhm. dit qu'il di euh, indi un changement.